man dama gëm ni parti chrétien bu amoon Sénégal mu fa ndax mu ma gënal parti socialiste ak parti libéral ndax Isa Ibn Mariam yonent yàlla valeur yi mu andi je me reconnais ces valeurs yi donc ñun le débat qu'on pose mooy ce Sénégal on ne peut pas ignorer les réponses apportées par Isa Ibn Mariam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la construction de ce pays lii mooy débat de fond bi wax qui c'est pas un bu ñu bëggee répondre nañu répondre par des arguments mais pas par des par des emprisonnements parce que mënuñu téye loolu mënuñu téye donc ñu génneewaat ma janvier ma déclaration en de fin février né damay def sama candidature à l'élection présidentielle parce que euh, il était question d'aller déjà à poser le débat autour de la gouvernance de l'islam dans ce pays-là lii moo ñu l'élection élection présidentielle euh, Bougoun, déjà présent ci échiquier politique bi muy benn mais ñaar poser un débat de xam ñu koy censurer pour le débat des valeurs parce que ñu ne pouvons koy faire di débat de le débat

J'ai naa fiche c'était la fiche 206 dem nañu parrainage du Sénégal on a eu des parrainages on a eu des milliers de parrainages man su may le le stock ça, ak ñëpp ñi qui xam ne ñoo ñu waroon joxe parrainage ëppale naa parrainage yi nga xam déposer conseil constitutionnel mais sincèrement ñun nous nous voulons sérieux man nous ma d'accord donc aw ma 30 000 parrain ba pare ma jël dossier am ko conseil constitutionnel pour faire genre Ce c'est pas sérieux n'est pas respectueux, ce n'est pas honnête. Nous ne sommes pas dans ça. on n'a pas déposé de dossier. Pourtant, Dieu sait, si nous avons un parrainage, nous avons approché de nous. Nous avons besoin d'un parrain. Parce que nous avons un il y a une valeur qui est une débat qui est Mais bataille par principe, on l'a refusé. Parce que je ne suis pas d'accord que Dieu parrainé. Parrainé, moi, je ne c'est pas honnête. Pour moi, c'est un war. Je suis un war. Je suis un war. Je suis un war. Je suis un war n'ai pas accepté le parrainage je me suis résigné à savoir que nous offre sénégalais comprendre et qu'on a du temps parce qu'une révolution ne se fait pas en deux jours on se réclame Inshallah, et nous avons koy doxal cette après beaucoup candidature élection on a eu le temps d'observer euh, le débat du mais l'homme, du mbiru copinage du mbiru fafaroo ndax Pastef am na candidature yoo xam ne bu ko présenté woon dama diw mooy nekk sama candidat soo baa ñu dañuy mujjee nërf du ñu faral waa Pastef ndax ñu nag euh, du ñu geenu kenn ñun par principe la ñuy jëfee le candidat Bassirou Diomaye fay damay am occasion sax mën a andi ay seede ci moom ndax nit bi nga xam ne lu mat di ay na nekkandoo yéenay yena yéenay yene yéenay jullendoo bi xam ne qui a des idées claires xam na la Sénégal war dem il est conscient des enjeux nit la be xamni wax deug yalla naw na ko ci fréquentation bu ndaw mu ko fréquenté non non pire non non très pire ku ku ku bàyyi xel diineem non non très responsable wax deug yalla suma waré tok di expliquer Euh, les qualité yu nekk si Bassirou Diomaye gëm naa ne man kon du ma fi jóg tellement c'est un homme pétri de valeur un homme wax dëgg yàlla euh, il me manque des mots a pour joxe dëgg-dëgg kan mooy Diomaye xam naa ne Sénégal na xam nga liggéeykat dëgg man chaque jour mu ngi ci ay projet ci ay xalaat ci seen programme ñoom programme passif Cheikh xool ma nangam comment tu trouves nangam di leen jàpp naa bu ñu ko defoon nangam mooy gën dafa qualité bi xam ne qualité bu am solo si leadership mu nit ki nga xam ne malgré xam-xamam xeebul xam-xamu keneen dina nangu déglu la dina nangu jël sa avis te dina nangu jël incorporé ko loolu je l'ai vu en Diomaye loolu depuis 2011 gisuma ko woon ci Macky moo tax Macky ne m'a jamais charmé xamoon naa ni kii du déglu kenn xel bi xelu baadoola la baadoola fa am nu muy doxee baadoola nawul kenn te nangulul kenn donc très tôt xam naa waa ji fi mu nar a dem fi mu nar a jóobu réew mi Diomaye est à l'opposé de nag wax dëgg yàlla lu ma métti la lu mooy métti lu la ndax ba léegi mu ngi ci kaso ba pour avoir un post Facebook bi xam ne post boobu ku liir sax ni la waa ji depuis dix mois et quelques mu ngi ci kaso ba war ndax euh, post déjà su waroon nekk

majoritairement wala boog sax totalement ñoom ñëpp ils sont incassables kap bu kaso yow da ngay manifester nga non manifester man maa ngi doog a wàcc dama doon liggéey la a waxoo dëgg da ngay manifester jàpp yóbbu am si yoo xam ne bokk ñoo sax passif kaso la ñu bokkee passif kaso dañu ne comme ñoo boole ci passif toroxal ñu ànd ñu fi ñu sax léegi ñu ñuy def ba bokk nga ne ngay jënd carte ñu ne ñun bokk nañu jënd carte jënd bracelet

ñu tooñ leen toroxal leen gàddu seen ak ci kaso bi donc ñu ñu koy ñu koy feddali ñaan ñu ko nag Macky Sall ndax ñu dañoo deful ñoo nekk ci kaso bi mais nag génnee doomu jàmbur ak jëkkëru jàmbur yu mu téye papa yi jàmbur yu mu téye c'est c'est même nga téye ko teg ko c'est man di comment une personne peut le faire pareil quitte avec sa conscience donc euh, Bassirou Diomaye ñu ngi ko jàpp dafa def outrage à magistrat man délit bi sax dama gis c'est un délit qui est parce que outrage à magistrat kat nan la ko outragé ban magistrat la outragé Bassirou naa énoncé toute personne yemul ci loolu soo def magistrat daf lay jëbal beneen mbokk magistrat pour mu àtte la mais délit bi il n'est pas juste mun naa ko mbasa nga tooñ kenn une personne neutre war la àtte

gis naa fay xale yu bari yoo xam commencé fa jang alcorane ñu amoon fa daara fofu ci kasso créé fa suñu daara chaque semaine ñuy wàccee ñaar yoon kaamil dañuy sédalé juk yi ku nekk jël ay juk yi ba ci basiru jomay fay day jël ay juk jang ko andi basam ñu koy séddoo di ñaanal dëkk bi ñom Cheikh desan xalé yu baax desan ñom ñep ñom ngañ ñom ñep andando ñi jang alcorane chaque mardi ñu xatmu chaque vendredi ñu xatmu alcorane déjà lii tawféex lu si ñom bañ nekk ci am si ñeen ñee xam ne mënuñu woon sax lii alxuraan daara ja foofu ñun jàngal lii alxuraan ñu ngi commencé téye alxuraan di ko lire maa ngi siy nuyu ñoom Babacar Ndiaye donc bu GPS injustement tamit arrêté un jeune extraordinaire nit ku yiw nit ku courtois nit ku yaru nit ku baax dem tamit il vit dignement sa prison donc kaso boo yàlla c'est une famille on a créé des liens très forts yoo xam ne man jàpp naa ne Macky bu yëgoon loolu ci la génnee gars yi ndax jàpp leen jàpp loolu tax na mu jàpp